daal di amoon ni ki démb bu fee ca Mermoz Sacré-Cœur muy euh, siège u xalifa euh, Sall bi nga xam ne rek daal nañ ko euh, taal loolee nag nekk ab actualité bi nga xam ni c'est à la une fi ñu toll ñëpp ñu ngi addu di ci jëm Cheikh Tidiane démb ba nga yëgee li nga xam ne mooy information yooyu nga xam ne daal dinañu saccagé daal di taal siège u ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ca Mermoz te am sax ñi nga xam ne ñu ngi koy jiiñ militant yu Abass Fall ana ndan nga ñu ci mën a wax waaw loolu nekkul lu rafet nekk lu rafet parce que man gis naa image yi. oui tey suba laa yëg information bi. Mhm. donc mu nekk loo xam ne man dama ko condamné waaw. donc dama ko condamné avec fermeté parce que mhm. nekkul loo xam ne lu rafet la parce que Sénégal ñu ñoo ko bokk élection dafay passé mhm. donc nit ku investir ci alalam ba taxawal lu ni mel donc ay xale jóge fële ñëw yàq ko taal ko. ba mhm. mën na laal sax ay voisins donc loolu ñaawlu naa ko trop trop ak fu mënti jóge nag xaw ma ko ko mënti def mais nekk na loo xam ne lu ñaaw la. Mhm. parce que quoi qu'on puisse dire après la politique. Mhm. après la pluie c'est le beau temps. c'est le beau temps donc Khalifa Sall le Sénégalais la comme ñun ñëpp. donc nu mu mënti demee opposition lu mu am am am donc ku nekk looy défendre ses intérêts partisans. loo ko mënti défendre warul tax ngay fekk autrui di yàq ay mat ay bagages am wala ngay yàq vraiment logistique am donc loolu ñaawlu naa ko trop trop trop vraiment man d'accordu ma ci. Mhm. kontaanu ma ci. te yoon na def liggéeyam. Mhm. parce que sànq maa ngi gis sax ministre. oui ministre de la justice wax na ci. donc ñoom ay poursuites sûrement dina ci am. Mhm. donc mu ngi def benn appel à la sérénité au calme donc ñu ngi ñaan yàlla lépp delluwaat ca na meloon waaye daal mhm. lii nii lu ni mel mhm. jar nañu topp ñi ko def ba yoon daal seen kaw man d'accord naa ci loolu parce que nekk lu acte bu ñaaw ah, euh, euh, euh, ko taal ñoom ñoo bëgg a yàq yi ñoom ñoo bëgg a sabooti élection yi waaw waaw waaw xam nga tey ji jiiñante la mën naa wax ne jiiñante la mhm. parce que tey Abbas Fall dafa génne def genre décla déclaration. di di leeral lu bare bare di ba ñu gis ci ay vidéo yu bari yoo xam ne. Mhm. dañu wane ay militants am ñii ñu gaañ leen. ñi mhm. nekk hôpital. donc ñi blessé bari na ñoo xam ne dañoo blessé man gis naa image mhm. donc mu xamal ñu carrément ne ñoom dañ leen attaqué. parce que ñoom bi ñuy dugg il paraît que ko ñu Barthélémy Dias doon dugg oui donc euh, nee ci ay waxam mhm. nee waa kër Barthélémy Dias ñoo attaqué caravane am gaañ ci ay xale yu jigéen ñii ñu nangu seen i téléphone ñii ñu nangu seen i xaalis ñii ñu corat leen donc am ñoo xam ne sax dem nañ ba nekk ci situation boo xam ne xaw na doy waar mhm. donc mu génn leeral lool ba sax yëkkati woon ay kàddu démb parce que mhm. démb ku ko seetaan yëkkati woon na ay kàddu ba xol bi moo doon wax fi mu tolloon la situation bi mu toll parce que Euh, yor ay xale donc ñu nekk sa responsabilité nga ànd ak ñoom lu ni mel dab leen donc nga réagir. Mhm. xol bee réagir mais tey bi mu demee ba giif. oui baal na ak autorité yoo xam ne vraiment déggante ñoom mu génne def benn déclaration jéggalu si kàddu yi xam ne yëkkati woon na ko parce nekkul kàddu yooyu parce que ko wax. Mhm. lu mu demee warul wax kàddu yi ni mel. mais warul wax ni jeunesse bi génn leen ngeen indi ngànnaay yi nga am ngeen ko. non Mhm. donc loolu nag loolu vraiment baaxul ci mhm. que mën na indi ay guerre civile kenn ñaanu ko. te waxoon nañu sax dañuy aj arme yi fi ñu toll nii euh, nañu bàyyi képp koo xamante ni yaa ngi doxante ak la jàppee di nga am euh, li nga xam ne rek moo la cay fayk waxoon nañu nañu aj arme yi ba le 17 passé donc moom bu taxawaatee nii ay militant génn leen ngeen indi loo leen am ci arme ndax bu boobaa it euh, duñu jàpp ne ñoom liñ nekk ci nguur gi rek a tax. non du question de nekk ci nguur du question de loolu da nga koy xool en en tant que nit ak nit. nit mhm. xol. xol boo ko laalee rek mën naa yëngu te ñoom ay xale la booy nekk yoree ay xale ñu nekk sa responsabilité yu ni mel bu amee mhm. booy réagir sax doo ko tey mhm. moo tax après regretté na ko mais loolu lépp lu baax la maanaam le fait que mu mu toog wu lu baax la mais nañ xool benn affaire lan moo indi lool c'est important li ko indi li ko indi la cause cause bi lan la nga jàpp waaw la cause de cette révolte mooy lan mhm. mooy lan parce que tey jii moom nee na waa kër Barthélémy Dias ñoo ko attaqué te ñun ñëpp avant élection yi di commencé baat Barthélémy Dias saa suy wax day menacé. lu fu mu menacé da doon discours am discours am yëpp wala sortem yëpp. Mhm. baat bu saagul day menacé. Mhm. discours am yëpp da doon menacé di xas Abbas Fall naan duñ dénk duñ Dakar duñ ko jox koo xam ne ay loxoom setul ainsi de suite maanaam di tenir ay propos yoo xam ne Abass Fall su ko gisee mën na mën na mën na mën na jeexal xool wala mën na réagir loo nit rawatina nit di ñëw sa koñ ñuy campagne war koo def ci anam bu rafet mu nekk fair play nga yebal ay nit ñuy attaquer caravane jàmbur ba gaañ de parce que ñu yor ay machette ñi yor jaasi ñi yor lu leen neex jàpp ay xale di dóor ak yu demee noonu te ñi ñi doon attaqué yor ñu arme donc loolu dafa ñaaw loo tax xëy na nit ki révolté lu ci war a mën a am mooy lan Barthélémy Dias à un moment donné génn na di gën a leeral di joxe ay excuse mhm. lu jig njaak moom mooy njaak moom Barthélémy Dias dafa war a arrêté menace yi muy def parce que mhm. moomul réew mi nga ni lu di njaak moom mooy njaak parce que bu dee menace parce que maa ngi koy dégg mu naan euh, maa ngi koy dégg ndax lan li propos yi Abass Fall wax. Mhm. mu ne ministère de la justice daf ko war a interpellé. maanaam justice daf ko war a interpellé ci propos yi. moom de la justice moo génnoon ni bu kenn yore ay ngàndaay. dëgg la léegi Abass Fall génn ni samay militant indi leen ay ngàndaay. parce que dañoo jël ay ngàndaay gaañ ko maanaam gaañ caravanam gaañ ay xalem moo tax bi muy réagir tayu ko. la preuve. pour wane ne pour wan la ne. Mhm. Barthélémy Dias du nit du xalaat bu doon xalaat démb kon du attaqué euh, Abass Fall xam nga moo tax. Hmm. demul demul fële Bakel. saaga leen mu defaat sorti jéggalu waaw jéggalu na parce que nit ñi ñoo ko doon wax Sonko Sonko loolu mooy contradiction nag tey jii yow maanaam nga dem te boobu gënoon a doy waar aussi parce que loo xam xam ba léegi Abbas Fall woote na mais kenn gisul arme arme ñëwagul ba léegi mais Barthélémy Dias dafa def injure publique ñëpp di ko gis image yi ñëpp gis ko mu def injure publique boo xam ne procureur mënoon na ko woo mu defaat sorti jéggalu sous prétexte que ne moom booy dakaar lool sax day yàq deru waa Dakar mu naan booy Dakar autrement ne booy Dakar dafa war a saaga loolu baaxul ci réew mi donc ku mel noonu tey jii bu Abass Fall waxee li mu wax te Abass Fall bi mu ko waxee si lendemain bi la jéggul te mi des na ay jour yu jours muy door a jéggul mais Abass Fall. yaram ma tàngoon ndax Sonko Sonko dañ koy wax dañ koy comprendre parce que nga yor ay xale ñu cor leen ay doomi jàmbur ànd ak yow bëgg la te yàlla tax bëgg projet bi bàyyi seen yittee topp projet bi. pour luy jëmal réew mi kanam. ànd ak yow yow nga yebal yow yebal say samba booy parce que yow da nga bëgg am majorité wala yéen opposition bi da ngeen bëgg am majorité assemblée nationale. Mhm. bañ projet bi jàll ba pare. Barthélemy Diaz wax ñëpp dégg mu ne ñoom bu ñu amee majorité lu loi bu ñu indi duñ ko voté. Mhm. loi bu ñu indi duñ ko voté maanaam réew mi day ingouvernable. luñ fi indi kenn du ko voté kenn du fay salaire kenn du def dara. Mhm. kon ku mel noonu bu amee ñenn ñu taxaw ne réew mi daa a jub nga attaqué leen ba cor ci ay xale yu ni mel donc ki yor seen responsabilité pour faw mu réagir mais amaana bi muy réagir mënoon na ànd sans froid am nu mu waxee mais defu ko donc loolu dañ koy comprendre mais le mais def na benn déclaration jéggalu par rapport ak kàddu yi mu yëkkati woon léegi si kàddu yi mu yëkkati woon nag si la Barthélémy Dias profité wu maanaam dafa profité wu de l'aubaine pour génn xamal leen ne warta fanaan këram bu amul ku war a fanaan këram moom la parce que yàgg na fee taxaw di saaga ñi ni moom Barthélémy Dias neex moom Barthélémy Dias parce que daa am lu ñun ñi xootal mais sinon Barthélémy Dias def bi mu saagaa def ay injure publique dañ ko waroon tëj bu yàgg mais daa am lu ñun ñi xool rek moom moo war a bàyyi menaces ak saaga yi chaque jour mu génne saaga Ousmane Sonko mais saagawul Ousmane Sonko saagawul Diomaye reformulation la saaga yi ñun ñi ay reformulation parce que autorité étatique nga koy tim naan ci yenn ba pare di ko répété donc loolu dafa nekk kàddu yu ñaaw yoo xam ne dans un pays normal boo xam ne justice bi mu ngi dox taw justice bu euh, kenn du wax ne parti au moo nekk ci kaw kon dañ koy woo mais tey jii avec da fen yi muy wax da ngay nangam da ngay nangam Ousmane Sonko nangam nangam Diomaye nangam nangam suñ ko woon ñu ne exécutif bi moo ci moo ci dugal loxo. Mhm. moo ñu koy bàyyi ni muy circuler ni mhm. su bi su ko moom du doon sax candidat donc moom moo war a xam ne muy doxee. bu amee programme mu présenté ko Sénégalais itam bàyyi menaces yi muy def. Mhm. moom dafa yàgg menacé Abass Fall. parce que xam na ne Dakar duñ fa am dara Abass Fall jamono moo téye Dakar. loolu nag mooy déedéet moom. Ah, mooy borom Dakar wala Barthélémy Dias mooy borom Dakar. soxna Ndeye Assou doon yi dafa changé. ma ne Abass Fall mooy borom Dakar wala Barthélémy Dias mooy borom Dakar. Barthélémy mosul doon borom Dakar xam nga li tax ñu ko doon woowee borom Dakar ba élection yi passé locales yi ba mu mën mënoon ci génn. Mhm. parce que dafa moom laay wax sax du dafa amoon mainmise Ousmane Sonko Ousmane Sonko la rek ndeysaan Ousmane Sonko tout d'abord moom dans le nord jamono jooju. waaw nekkul woon tête de liste. Mhm. parce que xalifa Sall su am waat la jiitaloon. Mhm. mais si mbaaxaayu usmaan Sonko si mainmise Ousmane Sonko si xalaatam bu rafet. mu wax euh, kooku di euh, Khalifa Sall ne ko ah au lieu de Soham Wardini teg fa Barthélémy Dias mu teg ko ci ba pare ànd ak moom campagne battre campagne ak moom dugal ci loxoom ba Dakar waaye mën a votel Barthélémy Dias maanaam tey jii Barthélémy Dias bu nekkee maire de Dakar gannaaw suñu borom c'est grâce à Ousmane Sonko comme ni ko keneen ak keneen di waxee maanaam ñëpp tey jii foo dem maire yi dañuy am vraiment dañuy dañuy kontaan sax di wax ne gannaaw suñu borom Ousmane Sonko moo tax ma doon maire. léegi d' accord léegi damay euh, Cheikh Tidiane damay lancer benn challenge comme ni ma ko defee woon tey si suba. Mhm. Abbas Fall mooy borom Dakaru wala Barthélémy Diaz mooy borom Dakaru bu nekkee ne Abbas mooy borom Dakaru ci commentaire yi defal leen ma ci un. bu nekkee ni moom Barthélémy Dias mooy borom Dakaaru deux laa bëgg gis ci commentaire ma dinaa xam balaa élection yi kan mooy borom Dakaaru mhm. parce que fi ñu toll nii coowalam borom Dakaaru mhm. moo waral démb ñu taal ci siège ñu bëri sax naan ñoom ci seen biir ñoo taal seen siège ci seen biir pour bëgg a tuuma lu bëri daal ñu ngi koy dégg ci wàll woowu aussi ñii naan Barthélémy Dias ci boppam moo orchestré mbir mi pour taal siège bi ñii naan euh, ñoom waa Abbas Fall ñoo taal siège bi coowlum siège bi daal nekk loo xam ni euh, Cheikh Tidiane fi ñu toll nii euh, nekk na loo xamante ni fi ñu toll nii tiital na ñenn ñi nga xam ni pare woon nañu pour ànd ak yenn leaders yi ci campagne yi. Barth il est capable de tout. nga ne n'a peur de rien. ay. Mm-hmm. Barth il est capable de tout amul lenn loo xam ne daf koy ragal ragalul dara te tey boo seetloo déclaration bi moom moo njëkk a wax ne yéen samay militants santuñu leen dara sinon ñoom sax mën nañoo taal seen seen kër wala ñu taal seen siège ne yéen yéen a ko taal. autrement hmm. dit que ne moom mu ngi teel a wax lu ni mel hmm. tubaab dane kii s'excuse s'accuse hmm. maanaam yow taf-taf nga teel a wu rek maanaam yow accuse nga sa bopp wane ne xalaat ba mu am ba naan militant yi passif mën nañoo dem taalal bopp seen bopp euh, seen seen siège ne waa kër Barthélémy Dias la kon li am noonu loxoom mën na cee dugg mën nañ koo def ba pare bëgg koo jiiñ waa kër Abass Fall mën naa ne loolu lépp mën naa ne parce ku sañ a jël ay ngàndaay naan xam ngeen ma avant mhm. avant élection yi loolu la doon wax naan xam ngeen ma mhm. te boo leen seetloo bu baax waxoon na ko veille élection yi mu ne mhm. euh, ministère de la justice waaw wala ministère de l'intérieur bàyyi boo ngeen yemale candidat yépp pour jox leen ku nekk ay nit ñu leen di aar si sinon man xam ngeen ma dinaa wut samay garde bopp te booba loolu mën naa ne conséquence li maanaam mm. artu yi ñu Barthélémy Dias doon artu lii man na nekk conséquence parce que xam nga nit moom boo amul programme. waaw da ngay def le tout bay. amuñu programme bay carte yi amul Barth fan nga gisee programme. Barth sorteem yëpp saaga menace. Barth nee na moom mensonge nga xam ne fi mu toll Sénégalais yaa ngi ciy leen koy xippiloo seen i bët. <laughs> coppite ci réew mi la Barth bëgg. moom moom ci boppam moom. laa la moom mhm, mensonge. Mhm, mhm. parce que na la nekk mensonge moom ci boppam. amul BFM amul bac. moom Barthélémy Dias amul BFM amul bac man heure yi ngi bëgg a bëri fii sax nag ah. yow Cheikh Tidiane borom Dakar ñëpp xam nañ ko Abbas Fall la ana borom deux yi Abbas Fall mooy borom Dakaru nga ni Barthélémy Dias amul BFM amul BFM amul bac maanaam amul compétence amul dara amul xam-xam waxoon bi passé bi passé waxoon naa ko amul dara xam la am hmm. réew ñëw di ñu jaay ne man guerrier la ku fi dof dof lu mën naa génne sama pistol yu dóor ndax lan crime ba mu fi defoon moo ko topp ba léegi traumatisé ko tourmenté bopp bi moo tax fi mu ne nii bopp bi normalul wérul yéen da ngeen yaakaar ne Barth dafa wérul de. nga moo dal Barth c'est un fou ambulant maanaam dof buy dox. dof buy dox mooy Barthélémy Dias wérul de bu leen ko considéré comme ku wér de parce que ku wér du taxaw si réew réew mu mel ni Sénégal xam ne dafa am dañu am ay valeurs yoo xam ne dafa nekk ci ñun Barthélémy Dias di toog ay plateau naan. waaw catholique yi ñoom sentir nañ ne Ousmane Sonko da leen mere dinañ ko def xeex dañ ko def lii di indi loo xam ne situation xam ne loo xam ne masul am ci réew mi nga bëgg xaajale catholique yi ak ak ak ak jullit ak yu ni mel. Mhm. donc kàddu ñaaw yoo xam ne daf ko yëkkati ba même catholique yi sax dañ ko cay mere kon kooku ngeen yaakaar ne boppam normal la ku dem ba naan moom bu jaroon réew mi. Mhm. article quatre-vingt maanaam offense au chef de l'État da koy supprimer. waaw wax na loolu. autrement dit que ne man su ma neexee la. kuy wax lu ni mel noonu di da ngay xalaat boo xalaatee utiliser sa intellect nga nekk intellectuel da nga naan kii du nit ku dem ba naan dafay criminaliser mensonge ak ak kii manipulation lan mooy manipulation lan mooy mensonge kon xanaa moom mooy jëkk a tëdd. Hmm. nga xam ne kii wérul quoi kon Barth li ma koy ñaan mooy bu fekkee am na programme. na ko dem présenter sénégalais programme bi mooy mensonge yi ñu ñuy gëmloo askan bi mu fas yéene leen u xëppiloo seen i gët ñu xool ni lii ñu leen i loo du lii lii la moom nee na noonu lay campagne développement léegi it nee na campagne u vaar lay campagne lépp loo xamante ni le premier ministre waxoon na ko fii te defloo ko askan bi dina ko génne tegal ko askan bi loolu lay campagne yi waaw léegi buy campagne buy campagne loolu waaw na yóbbaale bi xam keroog maa ngi koy dégg ban chanson la noonu xam nga Barthélémy Diaz moo nekk la première tête de liste dans l'histoire politique du Sénégal mhm. buy dem campagne di saraxtu population bi naan génneel leen ñu son de campagne loolu hmm? masul am Sénégal depuis 1960 mii mii mii bi masul am Sénégal depuis 1960 ba léegi mhm. amul benn candidat bu mas a jàkkaarlu population bi di leen saraxtu naan ngir yàlla génne leen ñu son de campagne joxe intitulé bi mi mi mi def ko challenge ku gagné dinañ la jox temps wala temps wala temps mu ngi door am si àdduna ndax xam la moo tax parce que xam na ne day forcer boppam xam na ne nit ñi bëgguñu ko amul kenn ku am jotu dem studio naan day day togg benn way pour Barthélémy Dias wala seen. ko mën a toggal Macky Sall mën a toggal Barthélémy Dias. Macky ngay tëkkaale Barthélémy Dias si côté boobu. Macky mën nga ko waxal ci maanaam ci côté défaillance maanaam ci anglais naan mauvaise gestion mismanagement mm-hmm. ci côté boobu ak sàccgex yooyu mën nga ko cee mën nga ko cee classe mm. mais ci côté intellectuel mm. ci côté popularité Macky mm. Sall du moromu du moromu du moromu ah, baaxkat intellectuel la ndax moom intellectuel waaye fan la moo tax mu ni Ousmane Sonko nañu def débat bi en français en français bul bul ma rappeler correction yi ma ko doon defal en français te yow en français boo xam ne sama vidéo yaa ngi ci réseaux sociaux yi yi gis nañ ko en français boo xam ne yow mi sax déggoo français moom Barthélémy Dias déggul français parce que man ta grammaire sax déggul grammaire parce que jàngul amul BFEM amul bac nan lay déggee grammaire xam nga tey jii nit mën na nekk France juddoo France wala juddoo États-Unis di làkk làkk bi mais làkk bi muy làkk ay euh, bu buy def ay buy commettre ay erreur grammaticale mën na cee bañ a rendre compte parce que jàngu ko loolu moo dal Barthélémy Dias bàyyi ma Barthélémy Dias di forcer ñun ñu chanson moom am na benn waykay jarul woon muy dem naan dimbal leen ñu génneel ñu son moom am na benn way. ban way la. bojo bojo yee seen baay ñëw na maanaam Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi nekkoon seen baay ñëw na loolu Bart moo ko way. Hmm. Bart moo yéen bojo bojo yi. Mm-hmm. seen baay ñëw na kan mooy seen baay ñu ne ko Bart kan mooy seen baay mu ne Ousmane Sonko mooy suñu baay. Hmm. mooy bojo bojo ba seen baay ñëw na parce que Ousmane Sonko moo nekkoon papaam Ousmane Sonko bu ñëwee dañ koy jaamu ñoom ñëpp dañ ko doon jaamu ñu deme noonu. kon kooku mooy papaam bu doon man maay moom dama jël son boobu parce que loolu son am la moo ko moom ma jël ko di ko campagne <laughs> son am la moom moo ko moom moom moo ko ah. jël campagne ko wala bu ñu mënul def loolu ñu jël bu buggaan bi nenu baxal gën taj nenu baxal ñu jël ko boole ko ci campagne yoon am nañ ay son ñoom jarul ñuy demaat studio wala sonal artistes yi ñuy dem ay studio di way di ñëpp ay son ñoom am nañ ay son dañ jël son yooyu noonu d'accord di saraxtu pour ñu wayal la Mame Mbaye nee na un Chérif Euh, Mamadou Thiam moom tamit euh, wax na loolu euh, Issa moom it wax na loolu man na borom dëy fi ñu toll nii lay xaar ngir rek ñoom it ñu daa wax mën a wax kan mooy borom Dakar moom Abass Fall la wala Barthélémy Dias la ñu àddu jëm ci ba léegi Ousmane Sonko ak teewaayam fii ca Mbour jëlagul woon kaddu nag pour wax ak askan bi moo mel nii 22h jot na du ñàkk nii yenn information yi fa ruusandee Fallou dinañu ko dabe ak suñu ci biir émission bi mais nag démb mu daal di door campagne ubbi ko ci Kees gannaaw ba muy def euh, cérémonie de clôture bi ci Kees la ko defee woon ci 7 du matin ci élection présidentielle yi mu dellu si waat euh, démb ci Kees Euh, feddali kóllëreem ak Thiès waayi mhm. waaye it yëkkati fi ay kàddu yu rëy rëy rëy euh, gannaaw cees nag daañu ñëw ci mbuux waaye dañuy daal di desandi ak Thiès euh, mu ni am na ci compte yoo xamante ni fi ñu toll toll na ci cent milliards yoo xamante ni ma nga fa mhm. ci benn nit boo xamante ni moom moo ko moom gis nañu Barthélémy Dias moom it daal di ñëwaat ni ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bu manipulé wul askan bi rek ma ngay wax lu méngoowul ak la nga xam ne rek mooy dëgg gi maanaam ku dul wax dëgg daal Barthélémy Dias ñëwaat na ci kàddu yi Ousmane Sonko yi nga xam ne rek dikkat na ci ba mu ñëwee fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nekk démb euh, ci ouverture bi nga xamante ne rek mooy campagne am. xam nga tey jii Ousmane Sonko yàlla daa dogal du seen nawle ci politique loolu suñu borom moo ko def du moom de du ñoom tamit suñu borom moo def lool. Mhm. la preuve. oui tey jii campagne bi benn candidat ngay gis muy sillonné dëkk bi. ay 15 heures ay 13 ay midi ay 10 heures benn candidat kese nga koy gis boo xoolee ci réseaux sociaux yi wala nga xool direct amul benn candidat boo xam ne yaa ngi koy gis midi wala 15 heures mu def caravane kenn rek nga koy gis muy président Ousmane Sonko loolu suñ borom moo ko may te fépp fu mu jaar population bi ñëpp ay génn dëkk bu mu jaar ñëpp ay génn